asalaamualeykum suñu mbokk internet yi maa ngi leen di siyaar bu baax di leen nuyu di am kontaan te mbégte lool jàkkaarloog yéen seen chaîne bi nga xamee ni moom mooy MIG bi waaye émission bi nga xam ni moom ngeen yàgg di seetaan mooy émission bi nga xamee ni moom mooy ëttu Tooxiduna ëttu Tooxiduna nag day émission boo xam ni ni ma ko yàgg waxee rek daanaka li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy leer doomu aadama yi lan la ñuy fexee ba xam. tolluwaayu jamono ana ak fan la toll xibaar bi nga xam ni moom la ñu fi indi tey day xibaar boo xamee ni daana ko dafa dox ci ñaari pàcc waaye ñaari pàcc yëpp lañuy ñuy boole daal koy leeral ndax mbir moo gis mu am am na lu ko sooke mbaat ni am na fu mu yem ndax kii jigéen la boo xam ni kan ko mayoon muy sëy ak moom tey tam jamono jii ñuy wax ak yéen yàlla dawul ñoom ñaar sëy dox seen diggante nekke góor yàlla boobu nekkoon na góor yàlla boo xam ni daana ko ñaare du ànd ak sagom ndax yenn saa yi mbokk yi ñuy jël kenn koo xam ne xel ma sellul mbay tam xel ma ci boppam jàppandiwul ci wàllu wér-gu-yaram ñaari xel mi dem ñaari xel mi di dikk ñu bëgg koo sagal ba may ko jigéen joo xam ne xëy tamit kooku tamit ci mbokk mi lay bokk kon kii ndaw si loolu moom moo ko dal ginnaaw ban ko mooyee borom këram boo xamee ni ñaare xel ma day daal di dem waaye yenn saa day daal di ñëw ndaw soosu nag sëy nag waa am na ko moom benn doom mi sëy ba metti gi metti kenn mënu laa wax ni mu toll ci na ma ko nettalee waaye tam sëy dafa ànd ak ay xeetu dóor ànd ak ñaare muy liggéey ci kër gi liggéey boo xamee ne du ànd ak mukk jëf loolu nekk doon ci moom lu piis loo xamee ne amul fenn foo xam ni mën na ko fa waxee sëy ba metti na ci moom mënu ko wax kenn mënul delluwaat tamit ci ay mbokkom yoo ñu ko mayoon ndax xëy na ba nu koy may xamuñu woon ne ki nu koy may kat de du ànd ak sagom mi ay xam nañu ko ndax yenn saa yi nii wax na ne parfois waa ji duma ko dumay metti yoo xam ni du mën a génn mukk di ko wax ndax bu ko waxee tamit xëy na du ci àqu sax loolu nag yóbbee ko mu yàq ci sëy boobu mais toujours daf koy indil ay jafe-jafe yàlla mi dara tëwal nag tax am bis ca nam ko waxee ne mu xëy daw daal dem ci benn mbokkom bu da nekk Touba. loolu lépp mu dem fa ngir bëgg rawale bakkanam ndax xëy na bakkanam xaj na ci boobu la sëy ndax kan ko may ñaara mu feebar ñaara mu mais tamit bu feebaree dama koy dikkal mooy ay duma ci moom te amul benn mbokkam joo xamee ni mën na ni wax ak moom tey tam loola mën a deñ ndax am na lu am solo loo xam ni lislaam moom la jiital ci néegu sëy dafa wax ni nit bu amee koom-koom bari al tey tam wér ci wàllu wér-gu-yaram tey tam am dina lislaam kenn war a koo may soxna lu dul na xel ma dafa nekk ci moom ndax doomu aadama bu ñuy jëkk xool ci moom ci néegu sëy li nga njëkk ko xool moom est moom mentalam mu ngi ci moomu parce que ki amul mental du mën a yor jigéen ci biir néegu sëy jigéen bi amul mental aussi moom tamit du mën a ànd ak góor ci biir néegu sëy kon xel mu wér xool ci doomu aadama ndax am na ko ba noppi ñu doo ko yëkkati jigéen bu am mbaket war ko ko mën a jox ndax mental la njëkki ginnaaw ba physique ginnaaw ba tamit doogoon ñëw moral moral mooy li nga xam ne mooy xeetu koom-koom yaag am yaag nattu ya am ci biir loolu moral la mais sëy la cay njëkk ci nit ki mooy mantaal bi ndax ma nga ca moom ndax mature na war a mën a jigéen di ko comprendre ak di ko defal ak yu ni mel kon loola ba ci amulee rek sëy boo indi na aw wuute te itam indi na aw jafe-jafe ndaw sa nag ginnaaw daw na dem na Touba ngir wala bakkanam ndax sëy gu metti toogam fa toog ne ke la mujj na nañ ko may baat baat googu nag muy ñaan yàgg na lool kenn may bu ko ba jamono daal ca la ba waaj may ko ci natt boobu natt boobu mu na benn natt bu gën boo xam ne war na caa duggaat ginnaaw na motilee liggéey muy liggéey ci benn ni bërëb boo xamee ni bërëb googu kat seen yënguteef ma ngay jëm ci soppiwu koom lu mel ne xeetu euh, mindi service ak li mel noonu maanaam ay xeetu banquier yi ndaw ak mindi service yi nga xam ne dafa am ay xeetu ay mbir yu ñuy mën a dugalee xaalis ba génnee ci mbir moomu nekk natt daf ko ca dat ba yoon taxaw ca moom war ko tëj ci ay at yu bari ci kaso natt googu moom mooy lan mooy am na ku fa jaar koo xam ni wóllëre mu xaritu Eh, nijaayam jooja nga xam ne moo utal liggéey boobu la ndekk wëllëre nijaayam boobu daal di jubul am na ay intention yu mu am ci boobu la jigéen intention yooyu ne bokkoon na ci ngorowoo ak moom bu njëkk ba wan ko confiance ba am yaakaar ne yaakaar loolu ndaw ci ne ko dinaa la takk ndaw sa gëm ko ci loolu wóolu ko nekk lu lépp dara du ci dëkk ndekk yooyu muy ñëw ci bërëb bari soppi ay koom di dénkaane lii di jël lii di dugal lii di génne lii xamuñu nekk ne yóbbu na xelu ndaw sa ba am na addee ju bari joo xamee ne mujj na ko jël ci boobu la jigéen daal dem am bañ defee ne contrôle ci boobu la kees la na gis ni koom-koom gi nga xam ne moom lañ dénkoon ndaw sa koom-koom jooje kat mujj na manqué comme mujj na manqué nag ndaw sa ba koy laaj ana fan la koom-koom nga dugg ndaw sa ci boppam biral ni moom xamul amul fan mu amul xamul fan la kom kom gogu dal di dugg nekke waaja xel na xel wa nawtal xel ma ba moom du ràññee ne waaja li la dugal ak li la génnee ak li la nangam ak lii la nangam loolu ni yóbbee ko yoon teg ko loxo jàpp ko diir mu am lu compat lu ay mbokkam génnee fay ko ñu may ko liberté provisoire jox ko dale ngir mu war a mun a comprendre loola complément boobu nag nga xam ni waroon na ko def ba fii may wax ak yéen nii ginnaaw bi ma joxee xibaar bi def ci teg nii ma ngay sàkku ndimbal képp ko mën a dimbali ndax koom-koom nga def na lu ba yaakaar naa su ma jumlee téeméer junni ak nangam loo xam ne war na ko caa dolliwaat ci boobu lu mbir ma ngay nekk sàkku ndimbal ci képp koo bëgg dimbali ngir loolu am a teggeeku ci kawam ngir mu mën a am liberté totalam donc mu doon jafe-jafe joo xam ni jigéen dund na ko ci réew mi ak fi mu ko yóbbee tey loolu lépp nekk ci ay jafe-jafe waaye am na aw njàngat bu xam ne am nañu ko ca war ko ca am na béréb bi ci njëkk moom moo di ni jigéen donte dana koy may gur yàlla ay mbokkam war na noo ràññee ana kan la ñu koy may ndax àddina jamono yi tey jii dafa wuute lool ak jamono démb tey jii nag góor gu baadoola lool mooy bari alal lool di woote daraja te fekk loolee lépp dara amu ca mentalement xel ma baaxul ndax day as baadoola kon mas naa moytandiku ana sëñ yi barkeel ana kan la koy may ak kan lañ ko dul may loolu am na ci solo beneen bi nag moom mooy xeet yi nga xam ne ni dañuy yëngu di ay jigéen nekk ci bërëb yi nga xamee ne dañ fay yëngatu ci mbirum koom-koom dugal ak génnee jigéen ñu bari coono ñoom ci yooyu la bërëb bu nu fa nekkee di fa liggéey la nga war a wu mooy ana lan liggéey mais ñu ëpp ci ñoom du ñu concentré ci lu ñuy liggéey dañuy concentré wu ca ña fay ñëw ca xale yu góor ya ka ko xaaj ba muy dugal ak kër ba muy génnee yu yaa ngi ut yow koo ca farantu ak koo ci nopp ndax koom-koom bi muy indi ak di yóbbuwaat. loolu dana waral nit ñu leen di nax ci bërëb ji mel noonu moo xam banque nga nekk moo xam sa euh, min nga nekk moo xam ci loo mën a nekk moo xam sax ngay jaay ci mini marché yooyu xale jigéen ñu bari ci bërëb yooyu bu ñu fa nekkee seen xel yépp mooy far la wut bu amee alal ak far bu am daraja ak ki nga xam ne moo tax ka sañse ak ki ñëw di dugal xaalis ko génnee seen yoon bu nekk mukk di contrôler lan moo fa war a liggéey moo tax ñoom duñ dañ mukk di am jafe-jafe yooyu ci mbirum yoon bu ñu la liggéey loo da nga ci dañ la liggéey loo waaye doo ci topp di wut koy farantoo koy bëggante la kay dugal lu bare kay dugal lu néew ba ëllëgee ñu nax la ci loola yow yaa ko def yow yaa ci dugg kon loolu mat naa bàyyi xel waaye bu tee tamit ma ngay sàkku ndimbal képp koo dimbal tamit mu daal di jën loolu moom moo nekkoon xibaar bi nga xam ni moom moo feex ci tey ñi war ni wax nii ngeen abonné ci bile seen dana ci am solo loolu Eh, ci yéen ci ñun jërë ngeen jëf bu baax a baax a baax